dalal leen seen beneen émission Kër Bamba Show alors ñu am mbégte et le plaisir également euh, donc chers internautes partage ak yéen tey plateau bi ak ki nga xamante ne bii rek mooy princesse princesse na ku ko xam xam ko ci yaayu Benjamin yàgg ngeen koo dégg naam euh, donc la cousine euh, wali Ballago Seck waaye tam itam Maggy Mbaye si Ndiaye yaayu Benjamin donc maa ngi lay nuyu princesse. maa ngi lay fay di jëy. Mhm. macha allah di kontaan ci yow. di kontaan ci toujours di jàkkaarloo yow loolu dafa may neex. Uh-huh. ndax yàlla moo ñu boole ngay sama frère di sama uh-huh. xarit tabarkàlla. Uh-huh. waaye foofu lay jaaree rek uh, di nuyu àdduna. di nuyu monde bi yëpp la ak képp koo xam ne rek uh, day faral di concentré wu ci seen ci ci uh, tele bu baax bii di Feeling Dakar. jërëjëfati princesse yaakaar naa ne mu ngi noonu dootu leen ko présenté li ñu gën a xam. fay ci askanu bala gu Seck li ñu gën a xam ci Faramareen bi ci côté waajuram bu jigéen yaayam yaa ñu ko xamal yow mi donc euh, lu ci bari naam yaa ñu ko révélé euh, ci sociale yoo xamante ne bi jaaga euh, daf koy def yaa ñu révélé yi nga xamante ne bii moom la ci balaa balaago sekk ndem si yàlla si nekkee woon ci àdduna lu bëri yaa ko révélé ginnaaw bi mu dëddoo ndax mbaaxam ki nga xamante ne bii amoon alors tey bu ñu tollee itam yaakaar naa ne ci phase bi bërki démboo Ndiaye balaa balaago sekk ñu gis ko ci tabaski mu génn lu mat treize million ba yaayam taxaw sax di ko gërëm. déjà geste boobu boo ko gisaatee qu'est-ce que ça te fait. muy lu mu mel. Mhm. yaayam sax xam ne treize millions yi la gis boo demee ëpp na ko. Mhm. waaye xool bi dafa rëy tabarkaal la. Mhm. ku mu sëkkandool joxe. di nga dem bàyyi ko fa parce que joxe ndoowul ak nit. xool bi rëy ba pare mu am néegu néegu joxe. moo tax loolu duma def dara xam naa xam naa ko nag. xam naa xale bu góor bi xam naa sama. sama cousin bu baax. Wally Ballago Seck. <laughs> Ah, xam naa ko bu baax loolu du dara ci moom. Hmm. loolu ngeen gis rek mais leer na ma ni man li mu def ëpp na lool. ah bon. Mhm. Euh, bu ñu la gisee chaque jour princesse. Hmm. Hmm. dafay défendre Wally Ballago Seck. princesse chaque jour dafay génn. di wax ci Wally Ballago Seck lu rafet. lu naay rek le princesse di wax ci Wally Ballago Seck alors tey sama question dafay jëm directement ci li nga xamante ne bii mooy la famille en question ku wax Wally wax famille aussi donc euh, gis nañu ne euh, moom mooy euh, magu Mandiaye Seck mooy magu Bambaali mais aussi donc Keba Seck alors famille Faramareen bi tey Wally Ballago Seck nekk ci souvent daba bu ñu la déggee booy wax. aussi euh, mu nekk wax joo xamante ne bi dafay sincère lool ci sa xol euh, wax joo xamante ne bi dafay dëgg lool ci sa xol mais souvent di nga gis yenn détracteur waal yoo xamante ne bi dañuy génn di wax neneen comme quoi que woy waali lu muy def non def ko ci ay mbokkaam daf koy def feneen est-ce que mën nga ñu indi démentir ne carrément loolu du dëgg. amul ah, mu lay njëkk a tontu ba pare. Mhm. da nga ni fu ma toog damay défendre waali mhm. man ñàkkuma fu de. jigéen laa mais ak ma mat tabarkal di ma doon gis nga waal yi li may wax nii su ko defuloon mhm. saxal ma lem saxalu ma kër mi ngi def nag li mu mën ci man di ko def ci keneen ak keneen mais li may wax nii su ko defuloon am naa mat bu toll ni duma ci wax wala boo ma laajee man la je passe duma ci wax ndax tabarkaan li may doon doon jigéen ñafe rek laa xam liggéey kese laa xam. Mhm. xaw ma taxawaalu xaw ma ñaan. Mhm. kon soo may laaj ci moom dara su ma lay wax parce que li ma gis ak li ma dund ak moom rek laa lay wax. Mhm. beneen bi ci topp tam ci famille bi macha allah famille Faramareen dafa nekk famille boo xam ne dañoo suudeewu. amuñu xàjj amuñu seen boo boo terelee benn Faramareen am nga Faramareen yépp mais aussi soo tooñee benn faramaareen tooñ nga faramaareen yi yëpp. Ah. dëgg la noonu moom la ñu yàlla bindee. Mm-hmm. soo fekkee fu ñu toogee doo xam ne kan moo mag ak kan mooy xale tellement que complicité bi ñu am da ngay gis sax mag xale boo xam ne day wax magam loo xam ne yow boo bokk son famille da nga naan ya parce que ñun noonu la ñu dundee. Mm-hmm. amuñu dunduñu affaire u mag wala raq affaire de bëggante la ñuy dund. parce que loolu la ñuy dund sincèrement bu leneen amoon it man la leneen moo walla wala ma ci du ma ci wax. bu leneen amoon doo ci wax. waaw wu wu dama la duma ci wax. Mhm. walla du ma ci wax daal maanaam pour tënk mais sincèrement li ma lay wax nii moo naturel man an ma Ndiaye taxaw naa ak moom gelam sax mera mera ma man. ndax ni ñuy kottante ni ñuy kiiwee xam nga li ma la man nii aussi itam des fois dama leen di wax di ngeen ma làmbaal. yéen di ngeen tax kenn du ma takk. dañ may kott dañ may fóon dañ may lëng ñun noonu la ñuy dundee. ndax bëggante bi. ndax bëggante bi macha allah ànd naa ak sama rakk mooy Lille Pro. Lille <laughs> Pro ma koy nuyu de passage. Mm-hmm. ma ànd ak moom muy baali muy dem soirée waale ma ne ko tey damay dem. boobu dama ñëw vacances war a ñibbi man ko damay ànd ak yow comme ça balaa may ñibbi mu ne ma ñu dem bi demee fi ñu taxaw noonu ci ci kii bi ci biir entrée bi noonu fi ñu taxaw mi ma kottu ñuy sinap di sinap ci saa si am na ku ko ku ñu ku ñu tiim ku ñu fi ñu taxaw maa ngi moom di ngi sinap nii de am keneen ku taxaw tiim ñu sinap ñu encore yónnee ko ko ci téléphone am. <laughs> yaakaar ni ko ni ko yaa ni ko yaay ànd ak sa diriyànke nii. te fekk ni sama rakk la bokk ndey ak baay. Mhm. dama koy fekk muy uuf ci sa kaw. noonu la def dañuy tëdd sama dënn bi dañ may kott dañ may fóon dama naan leen a tax aw ma jëkkër. ndeysaan eh, ndeysaan ndax bëggante goo leen bëggante. macha allah mm-hmm. alors euh, euh, am na solo lool ci biiru mbokk ci biir famille. Mm-hmm. ku la xam euh, xam sa yaay itam boo ki démb maman maa ngi koy nuyu de passage dama gis moom itam nga xamante ne bii mooy sa wu jigéen bokk ak coon Balago Seck ndey ak baay dama gis. Assane Ndiaye def benn vidéo ne ko Khady Ndiène da vocal ci groupe bi mais vidéo laa lay tontoo mu nekk geste bu doy waar geste bu tax yaram bi Assane Ndiaye defee vidéo euh, pour tontu vocalu Khady Ndiène genre euh, comme Khady wax yi mu doon wax ci groupe bi ci wax yu rafet ci mbokk gi Assane Ndiaye def vidéo pour tontu ko vidéo bi finalement mu jéewër àdduna. waaw parce que mooy li ma da ngay rek sama wax. lu doy waar. waaw ah, tonton Assane loolu groupe bi mu ngi tudd Kër waaw ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak Thione Seck te dese fii. ak euh, ay doomam yi nga xam ne nii ay doomi xolam lañ ñoo ko daan baal sil ñoo ko daan teral ñoo ñi ñoo booloo ubbi benn group tuddee ko Kër Papa Thione. Mhm. Euh, di ko wàcceel kaamil chaque vendredi di ko génneel ay sarax ay fruits yi mu gënoon a bëgg ak yeneen affaire buñ toogee ba mu yàgg ñu dajaloo defal ko ay affaire léegi ci groupe boobu fa sama yaay dugg wax ay waxam yu rafet parce que comme li ma la expliqué rek ba tey da ngay da ngay confirmer sama wax ñoom jàppewuñu sama yaay sax grande sœur ñoom yaay lañ ko def. bul jooy de li ma leen taaj. non man jooyu ma da ngaa bëgg ma jooy. sama rongoñ bii boo ko gis nii nag euh, triste na lool mais bul jooy. mais <laughs> dama jooy sama di commencé taa. maa jooy nii dama dama kii woon topp ma di ma ñaqatu ko. ba sama rongoñ li wër na yàlla maa ngi gis maa ngi gis mais ok continue. d'accord ah. continuer c'est juste pour te ramener parce que gis naa ne yaa ngi commencé di wax vraiment. non jooyu ma man jooyu ma. ndeysaan dama li ma li ma comprendre nga. Ah. Euh, ñoom dañ ko respecté tellement. Mhm. du ñu def dara te waxuñoo ak moom. décision duñ ko jël te waxuñu ak moom. ku ciy jël soxna di nga wax ak moom. ku ci am doom sax bala nga kaa tudd di nga ne ko lii laay def kii laa koy tuddee. ku ci nekk doo jël benn décision te waxtaanuloo ak moom. Mhm. bu tabaski jotee ñoom ñëpp macha allah seen xar day ñëw. Mhm. ci sama yaay seen koor bu jotee noonu duñ toog euh, semaine. wala weer te yónnee wuñ ci samay xaalis ay ñetti yoon. maanaam ñen nga wax donc papa coon yi wala frère yi. frère yi laa wax. frère yi ñoom Mapenda ñoom Assane Ndiaye ñoom Kéba Ousmane ñooñu. consort doomi coon yi aussi même chose la ay moomi sekk bintu ñoom ñëpp dañuy def noonu. ay Alioune Seck dañuy def noonu Mouhamed sekk man nii rek fuñ ma gis ñoom ñëpp dañ may jox xaalis. comprendre nga. Mm-hmm. léegi nag. Euh, Assane moom yàlla moo def mu nekk mag ba pare nekk mag bu yaru. Assane Ndiaye Assane Ndiaye. Mhm. dafa yaru yaru yaru ba nga xam ne xale bu ndaw mun na ko yembal. wallaahi xam naa ci dara te man yàlla dafa def man sama nijaay yëpp dañ ma bëgg samay xarit lañ macha allah. tonton ma penn noonu la mel boo ma fekkee may wax ak moom téléphone danga naan parce que mi ngi France nii nekku fii. bu mhm. may fekk wax ak moom téléphone danga naan sama moroom laay waxal. Mhm. tonton Keba soirée bu la gisee dalay kott sax di way bu paree yëkkati xaaj macha allah daal bëgguma ko leen catu. dañu macha allah daal famille bi yàlla nañu yàlla fa cat. amiin waay amiin ci mm-hmm. mbaax amiin ci mm-hmm. amiin amiin amiin ci mbaax gi euh, loolu si lu ma touché la mm-hmm. donc parenthèse la woon mais lu ma touché la. en tant que Assane xam nga koo xadiñ jiin xam ne mook coon balaagu sekk ñoo bokk ndey ak baay bu Assane dafay geste boobu euh, ba mu wër àdduna ne ko xadi du ma la tontoo vocal mais damay def vidéo. ndax wax ju rafet ji nga wax. noonu la mel moom noonu la mel dafa yaru de. noonu la mel dafa yaru. waaw loolu mooy respect bi quoi. mooy respect bi ma lay wax ni ñoom ñëpp ñoom ñëpp moom lañ ko jox. Mhm. defuñu ko mag yaay lañ ko jàppee. lépp lu ñu daan def ci seen yaay macha allah ñu ngi koy def ci moom moo tax ñun ñun ay doomam ñun tamit bëgg nañ leen en tant que nijaay ndax ku leen am nijaay nag jël. Mhm. macha allah kon lan ngay tontu ñi ñi nga xamante ne bii seen pexe yëpp guddeeg bëccëg mooy fexe ba disperser wala tasaare faramaareen yi parce que fu ñu toll ñu ngi naan woy nit ki li muy def defu ko ci ay mbokkam donc xam nga wax yi nga xamante ne bi ñu ngi koy wax ci Wally Ballago Seck nan lan koy tontu ñooñu. mooy xamuñu ñooñu xamuñu. Wally ku ko gën da ngay gaañu ku gën Wally ci kaw suuf man de sama côté bee ma dëkk de Aline Sow gee ma dëkk. Mm. jëm Pikine jàpp. yoonu jas bi dem ba aéroport jàll ba Italie ga ma ga ma dëkk. Mhm. gisuma ko fi gën waali de yeneen côté yi nag wóoruma xooluma leen. Mhm. ay fi ma fi côté bi wàllu yu ma féete gisuma ko ko fa gën. xool bu rafet maa la ko wax. Mhm. ku ko gën da gaañu. alors euh, euh, macha allah yaakaar naa ne euh, ci côté boobu tamit laa parce que gis nañu bërki démboo Ndiaye li nga xamante ne bi am na ca Maroc muy choc boobu nga xamante ne bi dégg nañ ko ñu bëri def ci ay révélation comme quoi ak ay sabotage la. ki ko fiir ci soirée bi la jógee dañ ko toppoon ñëw mbëkk otoom parce que ki ko mbëkk dafa daw mu nekk mbir yoo xamante ni toujours rek fay jëm ci détracteur waali yi ñu sonal waali song ko est-ce que jotul tamit ñu yërëm xale bi fi mu nekk nii est que souvent doo leen ko sax yërëm parce que euh, mbir mu doy waar la et puis c'est la première fois ma tokkeek mbokkam ngir wax ci ginnaaw bi yëf fi amee léegi ndax dégg nañ ci ay rumeur que soxna ay dara jóge na fi dem fekki ko Maroc et que voilà euh, dafa nekkoon ci état yooyu mais finalement ñu ngi continuer yaa ma confirmé léegi na ñu ngi continuer seen soirée di jouer. si ñu ngi continuer yow Waly <laughs> da ngaa xamul loolu macha allah c'est la famille ndax ñun yàlla moo ñu may macha allah xol bu set. Mm-hmm. ku ñu àndal sax boo gàttee xel di nga defe ni suñu ànd ak yow mënul jeex. ci àdduna tellement que dañ niñ lay fonkee niñ lay jàppee niñ lay respecté ñun ku ñu àndal dañ lay jàpp war du am ci ñun mukk suñu digganteeg nit mu jóge ci ñun parce que ku ñu àndal dinañ la jox li nga moom ba jox la ba joxaale la suñu yëf noonu lañ man mm-hmm. léegi nag nit ki bu fekkee da nekk ci àdduna raxas sa xol yaa ngi dégg. Mm-hmm. di dund dund bu set ak doomu aadama yi. di mm. seet ñi nga tane nga di leen dimbali. Mm. seet ñi la yaakaar nga di leen dimbali fi sa doole yam. Mm. ñooñu buñ la bëggee fàqal duñ la mën a dërëm ci kàttanu suñu borom. ndax nag yàlla day fay xol day fay jëf day fay yéene. waali man bi ma déggee affaire bi man da nelaw naa sax am ku ma woo ni ma man de princesse li ma ndax dégg nga seen waa kër ma ne ko lu xew mu may laaj ndax dégg naa sama waa munuma xanaa da ngay nelaw man ko dama doon nelaw yaa ma yee lan la munuma noonoo waal yi laa dégg rak xaw ma lan mun na ko yow bul ma rey wax ma lan moo xew. munuma noonoo du dara de dama dégg ñu ne dafa def choc xaw ma. Hmm. ma ne ko ah. may woote nag seen téléphone yi ñoom ñëpp occupé. may insister di insister ba mbay si laa mujjee jot finalement mbay si ni ma loolu depuis samedi la woon passé na. Ah te boobu dimanche la. kii la lundi la démb démb la barki démb la xaw ma. yow lundi nga ko yëg. waaw. lañ wax moo ko ma téye affaire la woon. samedi ñoom dañ cee yàq a jot de ñoom ñi ci réewal yu metti yi ñoom dañoo dañoo tardé de. kon jàll na bu yàgg. jàll na depuis samedi la woon. Wally dafa dem jouer ji jouer concert am ba mu jeex di ñibbi. ñu dugg ci otoom moom ak ay garde corps-am la amul heureusement amul sax ay kii moom la ak ay garde corps-am. moom nekkoon ci oto waaw ñu ñu doxee leen ginnaaw d'après li ñu ma expliqué. Mhm. ñu dox ko ginnaaw mbëkk ko mu mu mu dem mais waali dara jotu ko tabarkàlla dara jotu ko xam nga ñi mu àndaloon ñoo ci am ay gaañu gaañu. Ah, waaw garde corps tëccu bi waaw tëccu bi am na ñu ci. tëccu ci seen dëkk xaw ma ma daal mais am na ci ñu ci gaañu mais du gaañu gaañu yu giraaw. Mm-hmm. Mm. ya jàpp na seen yaram ñu ngi leen di traité te xam nga ni waali ku ànd ak moom ba dara jot la bu sooba yàlla dana la faj ba nga ni cocc. ci mm-hmm. kàttanu suñu borom. Mm-hmm. ku dara ku mu fekkewul lay faj gën ku mu àndal ba dara jot la. d'accord waaw tiitoon naa nag euh, bi ma ko déggee mais bi ma wootee ñu wax ma après nag dama santaat yàlla xam ne. yooyu yëpp bu dee ay pexe la tamit ki koy def du am ndam ki koy def day sonn rek du am ndam de waaye nañ ko xool nii te bàyyi ko nii te ñu ni ko jàkk te bañ koo piis ndax kenn kenn kenn ci benn noonu mënu koo téye ci kàttanu yàlla ku koy xool nag bi yóbbu nga bi sa bët te xool ko lan nga déggaat te ñaanal ko lan nga déggaat ci oto bi ko bëgg ndax dañ ne dafa daw est-ce que jot nga dégg ñu. ñoom dégg naa bi ñu taxawee gisuñu gisuñu ko gisuñu ko parce que ñoom bi dañoo wàcc di xoolante seen biir taluñu ko ba ñoom xam nga loolu da tiit gisuñu ko mu dem mais loolu yëpp <laughs> amul problème ki ko def tam yàq na énergie xam ne na tardeel na leen am na ñu ci. seen yaram tëj li ma bëgg a xam d'abord exactement euh, li ma bëgg xam te xam naa ne yow yaa ma koy wax parce euh, man du ma laaj lu ma xamul de. non yow ak Mbaye si yéen a bokk ndey ak baay macha allah donc euh, tey mbay si fekkee na wala mi ngi woon foofu et que moo la informé. li mu bëgg a xam exactement mooy oto bu ñëw parce que choc ku ne xam ne ni choc dafay am souvent donc nga dawale nee na nu baaxul wala keneen ñëw euh, nelaw mbëkk la mais bu ñu xoolee ci choc bi euh, nit ku jël intention ñëw mbëkk la carrément wala euh, lan nga dégg carrément loo xam ne mën nañu confirmer que nit ñi li ñuy wax que sabotage moo taxoon a jóg ki mbëkk. ah mais nit bu fekkee da nga ko mbëkk. xanaa di nga taxaw. Ah. bu la jàmm doo nga yëkkatee. bu di nga taxaw ni lu xool ga lu ko am ko gaañu nga accompagner parce que euh, dogal day am mais boo defee li nga def ba pare daw naroo jàmm. Mapenda Seck kay nee na cere bu duggee biir bëgg a jàll feneen nar woon jàmm. Mm-hmm. nit boo ko mbëkkee taxawal. mais boo mbëkkee daw am nga am nga lu boo en tout cas Wally mi ngi ci jàmm ci kàttan yàlla. ñi ci desit ñu ngi ci jàmm ndax nag waali kese bu nekkee ci jàmm sax te ñi ci des nekku ci jàmm tamit jàmm ji day xaw a manqué macha allah ñoom ñëpp ñu ngi ciy jàmm ñu ngi continuer seen tournée. Mhm. dem nañ Espagne ñi te ci kàttanu yàlla bu nu ñibbisee dañuy demaat États-Unis lu ci waay man yàlla mooy dogal. li yàlla namm ci yow man su ma ko bëggee fànq tam problème yi day commencé yàlla mooy dogal. Euh, alors euh, euh, mi ngi noonu je pense que question bi ma lay laaj peut-être du concerner nag carrément Faramaren bi mais gis nañu temps yi Omaro xam nga ko je pense que ay mbokk ngeen ay mbokk ngeen Omaro dafa nekkoon nag ci Sidi Diop xëy bàyyi ko donc jubali ci Faramaren bi wàllu balaa nga na dama tontu léegi xam nga yow sama waay nga moo tax. sama waay nga di ma ruubee moo tax dafa émission day métti day métti ci man ah euh, gis nga euh, moom temps yi dañuy gis ne ay dafay snap ay son waal yi donc ñu bëri ne nañu Omaro dem na ci waal yi ñëwaat na ci waal li ñuy wax parce que <laughs> peut-être fa la nekkoon donc yow en tant que koo xamante ne bii ci famille bi nga bokk euh, ci staff bi nga bokk. <laughs> <laughs> ñëwal. <laughs> ah mais loolu noo ko noo ko noo loolu. déggoo ma de dama ne la waale <laughs> ñam naa ko bàyyi naa ko amul fenn waalee neex waale moo neex ndax gis nga ku koy bàyyi ci dëgg nga koy bàyyi. Mm-hmm. te boo ko bàyyee ci dëgg boo demee di nga gis lu dul dëgg te da ngay ñëwaat gis Ndour dane yoonu dëgg boo ci nekkee bu ragal wéet. Mm-hmm. ndax saay saay si. ak ñu bon ñi duñ la duñ la fëgg waaye seen biir xool dinañ la nangul ni jàmbaar nga te sama sang bi jàmbaar la tabarkàlla te dafa neex ci xol boo ko sexee dinga xam ni moo neex ndax boo demee feneen dinga fa fekk leneen di nga xam ne lii ma bàyyi mooy dëgg nga reculer loolu kase la noonu rek nga ko gisee moo demoon nga ni ci wàll la nekkoon dem na ah. noonu rek ko gis léegi fa mu demoon. d'après li muy wax ne ñoo bokk maam moog waale. loolu moom géwél yu baax yi yëpp ñoo bokk ay maam montre yu baax yi ñoo bokk. non baax. non non non bul ma <laughs> ci tontu loolu kese waaye eh, tamit. Eh. ah Omaro fépp fu na fépp ne mook waale ñu bokk benn maam. loolu da koy yuuxuwaat des na yeneen yuuxu. parce que waale laa wax moo neex. boo ko sexee doo ko yàbbi man la boo ko koy bàyyi ci dëgg rek nga koy bàyyi te boo ko bàyyi ci dëgg foo mën a dem di nga dina yuuxu yeneen yuuxu keneen ku mel demoon ni moom yuuxu yeneen yuuxu parce que dafa baax buy ànd ak yow xoolul li nga am moom lu mu yor dina dina la ci jox ñaata apartement la waal sekk di fay par mm-hmm. ñaata euh, doom la waali di ngénte ñaata mariage la waale di takk ñaata dépense lay joxe te du ci añ. Mm-hmm. waa lii te xale la. Mm-hmm. sponsorisé par yàlla suñu borom. amul kenn koo xamante ne nii kii la yàllaa ko dimbali tabarkalla macha allah ak liggéeyu ndeyam ju baax ci. Mm-hmm. mais du sàmm alaar de. dégg naa dëgg loo gis mu def ko ci mbedd mi ci biir fameem la ko njëkkee teraanga boo dégg ni waaye def na ko ci biti def na ko ci biir ba pare doo koo génne ci biti. du sàmba alaar du naafiq te ku ko bañ sa yaay ko jurul mbaa muy sa sa cousin ka mat sa nijaay jur ko maa la ko wax. ku ne bëggoon nga am doom ji mel ni moom. ku ne bëgg nga am it cousin bu mel ni moom ak maa fier ci moom. ñii mhm. la kaa bi tëdd. Ah, ah. mais keneen ku dul moom sax dina yuux. <laughs> dëgg loolu loolu rek nga ci nga loolu nga ciy tontu donc mm-hmm. je pense doo doo doo ci avancé benn yoon. foofu lu ma ci wax dama cee xam dara xam nga ci dara. <laughs> Dawa Ndiaye bu ma ko invité dafay spécial ma nag moom parce que itam euh, sama xarit la te xam naa ne euh, Wally Ballago Seck mi ji cousin am donc daf ci euh, mën a sonn daf ko mën a bëgg lool mën ko jàppal tànk naam itam bu fekkee ni seen ànd ñoom ñaar dafa yàgg ma nga doore woon ca euh, ba dara dul dara donc loolu loolu itam yàgg na c'est vrai temps yi nag euh, coow li bu bare moo tax ma invité ko spécialement ngir waxtaan ak moom ci euh, faramareen bi ak li nga xamante ne bii xew na ci actualité musicale donc mu nekk lu am solo mais temps yi Assane Ndiaye dafa génne benn clip aussi clip bi apartheid bu Thione Ballago Seck la reprendre. ànd ceeg Mandiaye ànd ceeg Bambal yi vraiment mu nekk lu doy waar seetaan nga clip bi d'abord. seetaan naa ko dara umpuma ci tabarkaal la. Mhm. da cee boole ñu mën a way xam nga ne Bambali way rek lay def. Mhm. Bambali. Mhm. way rek la mën. xam nga ni ku ma benn sekk di sa baay. soo woyul dañ lay dóor. Bambali moom dafa mën a way loolu xam dafa mën a way pii tabarkaal am facilité way. te xam nga ni Mandiaye sekk. tabarkalla jàmbaar la. Mhm. macha allah dafa mën a way. Mhm. kon Assane bu jëlee ñooñu ay doomam la jël. te Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana moo ni woon bis bu ngeen ma gisatul na ngeen jàpp Assane njaay mi. ndax moom man la te man lay way kon Assane Ndiaye bu jëlee way Thione Seck wayaat ko dëkk yàlla yëfam la jël. mu daw yaram triste mais. Euh, da koy euh, way ci yoon parce que moom formation Thione Seck la xam nga nit ki la yar def ci yow ay jikko def ci yow lu bari kooku soo bëggee dem ci moom doo sonn te uh-huh. Assane dafa mën a way naanaan la. dafay wane rek ne euh, macha allah dafa mel ni Thione Seck naam bi mu dëddoo sax ci la famille bi nag vraiment di gën di suudewu a chaque fois di gën di suudewu di gën a booloowu parce que ku la gis. ni ngay waxee ku gis Assane Ndiaye ni muy waxee ku gis eh, Khady njiit moom yàgg naa dajale saan noonu la mel eh, sekk yàlla na ko yàlla guddal fanam ah eh, vraiment ku gis loolu souvent da ngay xam ne macha allah famille Faramareen ñoom itam vraiment kuy wax xam ne ñu booloo la ñu ñu ànd lañu waaw dañuy ànd dañuy booloo parce que ci loolu lañ ñu yar loolu laa lay wax parce que ay nit bu fekkee ñooy bokk benn kaas bi mooy wër ci kër gi ñëpp ci la ñuy naan kudd yi ñëpp ci la ñuy lekk bool bi ñëpp ci la ñuy sukk tëdd bi amul tëdd fii amul feek fu waay jot tëdd. Mhm. xam nga géwél dafay dundee loo xamante ne nii day boole njabootam. Mhm. da leen di suudee. Mhm. waaw parce que lépp day nekk lenn kase. moo tax nag ëllëg bu dee bu jigéen bi la foo mën a dem sëyi ji doo am problème. doo am problème mu gis ay nit doo problème mu joxe lekk doo am problème mu yaatal doo am problème mu bagage boo fekk foofu téye ko parce que dañ lay ba âge lañ lay former jàngal la ba nga xam ne sa xol day toj day yaatu te da ngay mën a mm-hmm. waaw ngay mën a digérer. Euh, macha allah alors euh, je pense que euh, fi may tëjee rek wala laataa mooy tëj mooy ku nekk xam na la aussi ci wàllay balaagu sekk yaa ngi koy jàppale mais aussi yaa ngi ci benn mouvement politique boo xamante ne bi synergie Pikine Debout et puis ñu génn ci ay échéance donc politique yoo xamante ne bi daba je pense tamit am na loo représenté Pikine lu bare bare bare bare bare ñi la xam Pikine aussi di adhéré ci sa mouvement mais aussi di adhéré ci li nga xamante ne bii rek mooy wàlli balaagu Seck te bëgg naa ñi euh, bëgg contacter Daba wala ñi nga xamante ne bi souvent ñoom dañuy soxla numéro Daba ngir adhérer ci balaa Ballago Seck euh, fans club yi nga koy tijjil donc groupe yi WhatsApp yi nga koy tijjil donc loolu yow aussi euh, je pense que war nga leen mën a jox sa numéro téléphone. sama numéro téléphone ma joxe ko fii yow ku ma soxla na la woo <laughs> mais ah. Daba. Daba Daba am na ñoo xam ne xam nga. ma soxla <laughs> ma ku bëgg a dugg synergie Pikine Ndabo. waaw na ma DJ mu jox la numéro princesse. ku soxla mais synergie mais joxe numéro synergie. déggoo ma de synergie Pikine Ndabo ñu bëri bëgg nañ adhéré. d' léegi na jaar ci yow yow maag yow ñoo fa nekk ñoo ko bokk. yow synergie sa synergie la di <laughs> tey nga génn ci man ku ma soxla joxe sama numéro na jaar ci yow. Ah. barab la nga ma bëggal nii de. <laughs> du <laughs> ah, la tontu sax. billaahi man diaspora bi ñu ci bari ak ñi nekk Sénégal eh, suñu première émission la ñu naan ma mais cousine Wally Seck bi macha allah eh, bëggoon nañu adhérer ci groupe am yi bëggoon nañu franchement jaax ci moom ngir dëggalal ko bëgg gi ñu bëgg balaa Ballago Seck. léegi yow yaay man maa yow yow yaay sama moitié noonu <laughs> nan jaar ci yow léegi. ku ko ci soxla wala nga bëgg li leer ci princesse. di jënd ma ngay woo mu teg la ci yoon ku ci àndul ci yoon rek xamal ni moom moo la bloqué <laughs> <laughs> en tout cas en amoon nañu am am nañu mbégte euh, euh, saa su nekk euh, di la di la di la dalal ci suñu ay plateau vraiment ngir waxtaanee li nga xamante ne bii rek. Mm-hmm. mooy parce que nee naa suñu waxtaan ci waali man ak yow suñu waxtaan ci waali lay commencé. Mm-hmm. donc ci waali lay jeexee mm-hmm. chaque jour parce que itam yaakaar naa ni bëgg gi ma xam ni bëgg nga ko. donc loolu rek moo tax saa su nekk bu may wax ak yow ci waali sax donc du ñu du ñu du ñu du ñu bëgg a jeexal. parce que yow yaa xam yaay ki xam sama xarit la sama xarit la yàlla moo ñu boole. Mhm. yàlla moom moo ñu boole ndax ci yaayam laa daan vacances bi may nekk xale. Mhm. ñu yarandoo yaayam yarandoo ñu ñu ñëpp man moomi ak moom ak Lamine bu bu coon Seck ñoo yarandoo école daan tëj rek ma daw samdi su ma wàccee vendredi école daw naa fa lu bari yaayam da koo def ci man. yaa ngi comprendre. bi may njëkk di di kii ak yooyu di jàngantu ay toggantu yu ndaw kati juuf boobu moo nekk kër euh, kër Kiné kër Coon kati juuf moo nekkoon ci waañ bi di togg ñoom seen bu daan togg damay ñëw ci waañ bi di xool di xool li muy def. dina ay de kati mooy moo moom ak yaayu Aziza ak yaay Waly ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. léegi kati moom ki ne moo ko yoroon. moom la nga dégg Waly way na ko sax maman kati. Waly way na ko lu neex. Ah, way way wu rëy na ko way bu la Benjamin def lu rëy. waaw mi <laughs> ngi naan xam nga xale yi dañoo am ngor boo leen lebalee rek dañ lay fay. kati Marie Diouf. dañoo ah, am ngor boo leen lebalee dañ lay fay. léegi euh, ñu ñu yaroondoo maag moom ak. moo mi sekk ak ñoom boobu alin mii léegi la nekk sama copain yi ñuy génn rek waaye boobu xale la moom tamit <laughs> Mouhamed Seck xale la su ma fasee waale rek nopp nopp Aline noonu laay def Mouhamed moom am na jabar moo tax dama koo bàyyi teg ko fële comprendre nga <laughs> léegi ñu yarandoo ñu ñépp ci benn kër macha allah. Mhm. seen yaay baax xam nga xale du fàtte mhm. tey jii su fekkoon dama fay dem mu di ma def ay affaires yu sew du ma fa demaat mhm. wala day des sama bopp duma ko fàtte mais jaaga daf ma yàgg bëgg est-ce que xam nga jaaga day wax ak man sax loo xam du ko wax sama yaay day sekk ak ma loo xam ne du ko sekk ak sama yaay lu mu jàpp lu mu mënti doon su ma ko ñaanee day mel ni non day mel ni galaas daf man damay dem damay toog sax di di di di poser question lan moo tax kii mel nii ci man cër bu ma jox la respect bu ma jox fonk ma yëg ma te xale du fàtte moo tax loolu mooy des toujours sama bopp man aw ma temps wu kenn fleur maa ngi sant suñ borom di jëy mhm. maa ngi liggéey sama liggéey tabarkaal la mhm. su ma bëggee génn génn ci jàmm ñëwaat ci kàttanu suñu borom kon maa ngi sant yàlla. souvent boo ñu mais damay wax dëgg rek. Mhm. souvent boo ñuy wax ci euh, jaaga bu ñu koy dégg dañuy xam ne xol ngay waxee mais euh, li ngay wax ci coon bariwul de amu leen woon proximité. en kay coon dama kaaru soon sax booy seet. mais loolu su amee coon la ci coon mooy branche bi. loolu su amee coon mooy branche bi. bien sûr. comprendre nga. Mm-hmm. coon mooy branche bi moom tamit dalay dalay daan benn jour mës naa ñëw ci DJ xalaat nee nañu di cikar cikarin tonton damaa bëggoon tey sooy dem soirée nga yóbbaale ma. di jaay jànk bu forox. mu ne ma ni nga ni ma ne ko damaa bëggoon laa wax bu guddee sooy dem sa soirée nga yóbbaale ma mu ne ma yow eh xaaral a dof ma ne nii. mënuma bis bu ma la gisee soirée dama lay rey. toogal ba nga am jëkkër boo amee jëkkër noo xolal ma assuré sa sa entrée sa entrée jëkkër ba saa yoo ko bëggee noo xoolal ba ba may bàyyi waay mais bis bu ma la gisee boite te amoo jëkkër dama lay rey. ma yor laat saat ndànk dem tëdd. boobu mi ngi tëdd Kilimanjaro. boobu fàtte naa sa ay sayal. yooyu la woon boobu xale bu tuuti laa di jaay fit di jaay fit ñëw di wax yooyu. Ah, mu ne ma bis bu ma la gisee boîte dinaa la rey. c'est vrai que moom jurul doom ji dem boîte ah. non non non non non non non <laughs> yow man loolu laa tàmm ba nii nii may wax ak yow. lu doy waar ak noonu. xool man mun naa fee nekk mun naa ñëw vacances Sénégal ba ñibbi sax du ma baale. te samay frère bu ñuy dem oto yi nii lañ koy gaaree macha allah di dem mais li may mun naa toog ay des fois damay ñëw ba ñibbi sax du ma dem. des fois ma toog rek gis leen ñuy kii ak yooyu wala ñu toog nii jàpp YouTube teg seen soirée. ma koy déglu ba yàgg am envie da dañ lay yar ci toog ba doo mën a dem dañ lay éduquer ci toog ba doo mën a dem. loo wax mun la bàyyil ba nga am jëkkër nga boo amee jëkkër ngeen dem mais bul ñëw. loolu buñ la koy wax nag da ngay defee ni dara la mais éducation la parce que am na lu bari lu muy dindi mën naa am peut-être que âge boobu su ma nanguloon fa laay doxee tàmm ko. bu guddi jotee sama tànk yi di xasan boîte mm-hmm. mais sant yàlla boo demee ba màgg ba màgg mm-hmm. ngay xam lan lañ la ban éducation lañ def ci yow ci yar gu mu yaroon njaboot ci mm-hmm. ah. euh, na fi wéetaay nag vraiment bu mag ah, bu mag la fi bàyyi yow xam naa li nga bëgg waaye doo am tey quand même yéen a ngi assuré parce que macha allah non tey tey tey bëgguma dara waxtaan bi dafa relax <laughs> te waxtaan bi dafa relax tey moom dafa relax dama kontaan heureusement que wax nga ba pare te jooyoo. du ma jooyle du ma jooyle ma bañ <laughs> jooy ma. heureusement que waxtaan bi tey dafa relax donc mi ngi noonu je pense que euh, li la waraloon tey ma ma ma ma ma ne il faut euh, nga wax ci li nga xamante ni bi wax dëgg yàlla donc nga leeralal nit ñi un peu parce que ku ci nekk ngi naan nii mais heureusement bi ñu xamee ne Wally mi ngi continuer di jouer ay concert am. parce que mbay si yéen a bokk benn kër Benjamin te ñibbiseeguñ. ñibbiseeguñu ah. ñoom continuer nañ Maroc nii. effectivement continuer nañ Maroc te incha allah léegi ñu ñëw bu ñëwee demaat États-Unis bu ñu jugee États-Unis nag ñëw mbara cuupe dëkk bi ndax ñu ngi waaj lu garaaw ñu ngi waaj mbara cuupe lu garaaw loo xam ne nii bu génnee tabarkaal la dëkk bi yëpp dina mbara cuupe <laughs> dina loolu. mbara cuupe ah? ah. mbara cuupe mbara cuupe. mbara cuupe. waaw ah. dafa maa lay bàyyi nga tàggatoo <laughs> wala Mbara Cuppe ngay tàggatoo. Mbara Cuppe ak Benjamin Ndiaye. ak ah Benjamin mooy dëkk bi ah, incha allah. moom génne génne na fi Rita ñuy wax mu ñëwaat génne euh, bi nga xamante ne bii tubaar fakkaal la xale bi sax daf ko ci rendre hommage Jeeba. ah mm-hmm. daf ko ci rendre hommage ci waxem bi nga xamante ne bii def na ko. ah mm-hmm. euh, léegi nag mu ñëwaat def def mbara cubbe mbara cubbe Benjamin fu ñu jëmam moom. mais dafa mu leen jëmee ndox amu fa. def na riitam mbala ñëw def jambu. waaw ñëw defaat mbala cuup. waaw ah. doom princesse la. <laughs> doom princesse la lay génn. jëm dëgg la. alors mi ngi ñu koy nuyu de passage sama waa ji Benjamin moom itam yaru lool baax waaye. Mm. su ma yaayu bopp xadi njiit Mhm. moom maa ko bëggal sama bopp. loolu dafa leer sa xarit la yàlla yaa rabbi maa ngi lay maa ngi lay nuyu de passage yow tam di la ñaanal. et puis mhm. la famille. Mhm. macha allah ak mbay si sama copain. donc si borom baax la moom tam sama jumeau sama xarit la. ku baax mbay si Ndiaye. dafa baax. ku baax te woyof. Hmm. macha allah sama famille daal <laughs> j'adore. macha allah j'aime j'aime <laughs> alors donc moo bàyyi la nga tàggatoo nuyu Pape ak euh, Fama. Pape mi ma napp di ma kar kare sànq ba tey. maman dafa sëy rek bu dul jeex <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax. Ah, tabarkàlla macha allah. Mm-hmm. di nuyoo ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. ak say sponsor ak say sponsor. kàlla ak say géer say sponsor. Ah, mu ngi noonu. <laughs> kon ayca kon ayca di jàll. waa A2I. a 2 i mu defal lu di leen nuyu <laughs> waa A2ITV. waaw waaw waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu suñu patron. Mhm. Omar Ndiaye. tabarkalla macha allah di nuyu mbay Babacar. mbay genn mi nga xam ne mooy borom Fatima coiffure mi nga xam ne moo ma defaroon lii léegi bi may dem sama émission te gis nga ñawaat naa ba fii te tabarkaala maa ngi gën a belli di gën di mhm. jongoma mhm. ah di sant Nogoy DG mi nga xam ne moom moo ma daggal sama tunique bi mhm. ma sëppoo ko nii rek wéeri ko ci ligne yi yóbbaale tabarkaala di nuyu ñëpp daal nga xamante ne nii ñoom ñooy seetaan Feeling dakaar di wax ni jàpp leen fii la. waaw waa Synergie waa Synergie Pikine Debout. waa Synergie Pikine Debout tamit maa ngi leen di nuyu bu baax di leen kontaan kontaanee ndax macha allah. Hmm. sawar nañu bëgg hmm. nañ ma nangul nañ ma. Hmm. kon maa ngi leen di sant di jël seen nuyoo ñoom ñëpp di ko teg ci loxo La Lyon. Max La Lyon mu ko waaw. jël bu góor ñi <laughs> jox ko Cheikh Omar wala këlam. ñu wasaareel ma ko ñëpp. muy mm-hmm. kenn ku ci ne nga jot sa wàll di wax uh, rek uh, jërëjëfe yàlla sunu borom alhamdulilah commencé ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilah lépp ci kàttanu sunu borom lay nekk mm-hmm. ak aussi di sant sama yaay di ko ñaanal mu gudd fan lool mm-hmm. wér lool yàgg fi lool bañ di ko weer ak di wéri di sant sëñ fàllu Mbacke aw bu sa sama waa ji sama xol ah di ñaan sunu borom yokk ay leeram te taas ñu ci ay barkeem di wax ni rek bu wax ji jubee sunu borom la waaye nag bu dëngee mata di doomu aadama la ndax liñ fi indi rek mooy waxtaan ak yéen. leeralal leen damay damay damay ci de <laughs> leeral leen moo ñu fi indi lu ci dëng rek ñu xam ne mata di doomu italiano si si eh, così eh. io saluto tutti adesso perché è bello di stare <laughs> come mio amico eh, Bamba ah. Oh, waaw waaw Bamba. tubaar fa kàll di, di eh, fare mm. discussione con Bamba. Mm. Quindi io ringrazio tutti, mm-hmm. tutti quelli che guardano queste TV di Feeling Dakar e vi auguri tutte belle cose e tante belle sorprese. Mm-hmm. yow laay déglu. jërëjëf euh, merci beaucoup donc gërëm nañu ko bu baax a baax a baax donc la princesse Daba Ndiaye mu ngi noonu di suñu xarit bu ngeen gisee waxtaan bi relax mooy moom nag suma xarit la suma jigéen la. Mm-hmm. Euh, itam di kenn ci man donc ak toute la famille nga xamante ne bii dëgg-dëgg yaayam ji daf maa bëgg maa Xadi Njiin Sekk ma koy ñaanal suñu borom guddal fanam may ko wéer donc chers internautes yéen itam yéen nga xamante ne bii yéen doon teewlu ñu ngi leen di euh, gërëm alors di fàttali ne bii rek ñu ngi koy nuyu de passage muy Ousmane Fall Jordan waaye. di nuyu sama xarit Jordan kooku sama xarit la de Ousmane Fall maa ngi lay nuyu bu baax. Ousmane Fall sama frère sama xarit kooku daf maa bëgg yow. ndeysaan nit ku baax. daf ma bëgg sama xarit la. di nuyu sama chéri ba bu baax di nuyu sama doom yi. Ah, macha allah di nuyu bébé bu bees bi dafa am doom bu bees. maa ngi nuyu bébé bi bu baax ne ko bàjjen mi ngi lay fóon. promoteur la boobu mag donc Liev Jeanne alors ah. Liev Jeanne mu ngi nekk foofu noonu ca euh, Belgique dafay euh, génne. Euh, le 15 août donc Lieu Jean dina génne euh, benn en tout cas benn single boo xamante ne bi sortie bi ñu ngi koy waajal foofu noonu ca Belgique muy euh, le 15 août en tout cas l' ci boppam muy Lieu Jean nga xamante ne bi actuellement mu ngi def tabac foofu noonu au niveau de Belgique dinañ ko am en tout cas ci plateau Feeling Dakar incha allah rabbi gën a waajal sortie boobu nga xamante ne bi mu ngi koy def en partenariat nag ak sunu waaj yi Ousmane Fall Jordan di ko nuyu ñi nga xamante ne bi ñooy teewlu ñëpp internet yu Feeling Dakar gërëm nañ leen sant leen Kër Bamba Show la woon ak princesse Daba Ali alimo nekkoon ci régie bi. Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar.